بعد العزبله وبعد البسمله وبعد الحمد لله وبعد الهوقله أه، بريزيدان أه، سي سوبي سو كولابوراتور نو لي أه، نيو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ياك سا فامي اك سي كولابوراتور اك سيتوايان ياك دي واخني رك ني نانغو دغ نيب خامنا سي كوراج اك سي ديتيرميناسيون ak di respecté norme yi nga xamante ne bii constitution bi moo la ko may waaye ñu toll ci tolluwaay boo xamante ne bii soppe day am droit génn xalaatam jotal la ko nga boole sa xalaat ak say xalaat yi collaborateur ak say kilifa yi nga xamante ne bii ci penku di leen di déglu ndem court moyen et long terme moo am covid 19 bi nga xamante ne bii maladie bi dafa daj kàpp ci àdduna bi ñun li ñu ci concerné Sénégal ci la ñuy wax ak yow man nag ci sama ngëm-ngëm laay waxe jàpp naa ne fi ñu toll boo woyefaloon fii ak semaine prochaine mbir yi ñu gën koo woyefal ñi nga xam dañ doon jaaxle ak ñi mënta liggéey ñëpp te liñ daan liggéey ñu ciy for dara wala yu demee noonu ndax même état bu amee yéene ñi amul du ñu lekk ñëpp bo même bu amee yéene di leen jox dara itam du ko man moo tax nag euh, bu ko defee bu yow boo ci dugalee yépp man bi maanaam fi mu jëmoon long terme ñu xëcc ko nga xëcc ko ba court terme ba nga xam ne fi ñu toll nii des semaines prochaines da ngay fexe li ci li ëpp li ëpp solo yépp maanaam fite boor ba nit ñi gën a mën a féex ñi doon liggéey mën a liggéey maanaam ñu tee empêché kenn ci dara ndax lu dul yàlla ak neen la fal yatawakkalil mu'minuna alallah fi ñu toll moom bu feebar bu feebar bii bu dul woon bii itam du tee nit ñi faatu du tee nit ñi feebar dem loolu nag moom su ma doon yow daal ndax fi ñu toll nii ñëpp lay yéene jàmm ni ñu ko yéene seen bop waaw te boo amee jàmm chef d'état chef d'état bu amé jamm rek manam ñi ci des moom dañuy dal di rafet njort ni ñomit jamm jàmm ñew ci ñom bu ko nak légui euh man japp na ni yow li nga xamanteni bi kilifa yi ñaanal nañ la ko yépp ñaan ko ci réew mi kilifa yi diine ni loolu mënut jaar ci ngelaw li rek jàll ah man dama rafet njort waaw té dama rafet njort ci sa ndam man dama ci rafet njort man waaw man personnellement dafa am lu ma xam ci sa mbir ci sa étoile sa bidiw kooku nag du jar ma koy révélé waaye daal bay ba nga dalal sa xel te woyefal mbir yi waaw wax ak say collaborateur scientifique yi nga xam ne expert yi nga xam ni ñoom ñoo lay conseiller ci mbir mi nga wax ak ñoom waaw jël say responsabilité parce que nit ñi yow la ñu fal sénégal yi yow la ñu fal yow ngay tànn say collaborateur te bi yoon bi jàllee nag collaborateur yi nga gën leen a xool nag gën leen a settantal waaw wallahi mënuma koo mën a ñàkk mënoon naa la ko wax itam nag te nit ñi duñ ci jot waaye damaa xam ni sénégalais sénégalais yi fi mu toll nii wax dëgg yàlla ñi nga ñi ci ëpp ñëpp dañ la yéene ndam dañ laa yéene ndam te bu ñu sañoon itam ñu woyefal mbir yi waaw bu ko defee nga déconfiné e, mbir yi waaw boo ko boo déconfiné wul à cent pour itam boobu nga déconfiné à soixante six pour cent mbala nga xamante ni bi wax dëgg yàlla population yëpp dañuy bég ba noppi ñëpp gën laa ñaanal ñi la doon jàppale gën laa jàppale ñi la doon soutenir gën laa soutenir waaw man ndax réew mi moom àlla kulli xaalin farafet rek la jëm te dina naatit waaw ndax loolu moom <laughs> ci borom la loolu ci Sëriñ Tuuba la fawrin bi naar awazanillahu min asheytaani waxaadali manasihal awtaani njariñi dëkk yëpp dina la wuy si fii loolu daal bay boo sa xel dal ci li sa xarit la koy wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh